ci ay jamono nga xam ne ni jamono jaxul woon ba mel ni sabar gu tas mag ñi dañu doon léebal xale yi ngir xamal leen àdduna ak nuñ ci war a dëkkee ak seeni nawle waaye ñu nemmeeku ni lépp doon na mbir moo xam ne nii jafe na lool ngir ñu gis ku koy def loolee tax bàyyi kuréel yu mel ni atelier Ngano taxaw temb ngir ñu gën a jëmmal lépp ben disons que moi aussi. man bi may nekk xale dama doon déglu ay léeb ci samay maam ci samay bàjjan ba sax ci sama yaay loole nag dañ ko war a wéyal la méngale ko ak jamono ba ñi nga xamante ne ñoom ñooy ndaw tey ñu gën see bàyyi xel bu baax ñu xam lii di monde imaginaire. aussi ce de de l'imaginaire. moo ne yooyu la lépp lu muy jàngal ndaw ñi bëri na lool ñu koy tibbee ci aada ak cosaan. ci nopp yu muy tokk diñ ci jëlee njëriñ lu bare. et surtout. et surtout ça aide beaucoup à réfléchir sur les choses en même temps je m'amuse comme un fou. en même temps je m'amuse et en même temps je. j'apprends je trouve que ce mélange est vraiment bien. et du coup c'est vraiment bien. ñu ñuy màndargal ci biir lee bi mu di nit wala mala kenn ku nekk. am na ay jikko yi nga xam ne ni moom nga làmbool ba tax na xale bu koy déglu dina mën a ràññee lu baax ak lu bon lépp bi nga xam ne ni moom la ñu xale yi léebal ñu woowee ko jamaa deden di wone solos bi nga xam ne ni mbokkoo am na ko ci dund nit ki oh ak waa Aden yow yaay sunu sauveur yow yaa ñu nar a indil leer bi nga xamante ne moom lañ yàgg xaar si bile dëkk te nag mu ndax fi sax histoire bi day wone rekk solos xam fi nga bàyyeekoo ndax loolu def war bokk ci nit loolee bu ko nit amul daanaka du sax nit. fii la lépp di jóge daal di tàbbee géej bakkan bu ko njëkkee foon daldi di tàbbee ci aljana ja. ololo